jërë ngeen jëf Kër Massar Sénégal Afrique ak àddina bi nuyu nañ leen ñëw fii ci Kër Massar mooy fàttaliku d'abord Mariama Sagna yal na ko yàll yërëm yal na ko yàlla xare aljana fàttaliku Mariama Sagna mooy fàttaliku itam ni ngiiru nguuru Macky amul justice amul paix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 ñun ñoo réunion fii dama bëgg ñun ñëpp ñu ànd wax ak Ousmane ne ko usmaan wuyu ci woo wuyu ci woo wuyu ji woo wuyu ji woo wuyu ji woo wuyu ji woo wuyu ji woo fenn lay daanele lii mooy mot d'ordre bi lii mooy ndigal bi jip Ousmane wuyu ji woo boo buggee sax wuyu ji woo xam nañ ne bëgg nga dem doo wulu ji dinañ taxaw sa kanam doo wulu ji Macky Sall nag lenn rek lañ koy wax boo ko laalee boo ko laalee